ñu may waxtaanal ci grand théâtre ci bëccëg bi mani leen fu mu masa teg tànkam su jootal na fa yàlla ba sëlmal door a nuyoo ma netti leen benn ci leen ca ndar ba mu ko defee ci bureau gouverneur bi ko tubaab bi laaj ba toll ci lu nga julli ci sunu barab bi dani ko da ngeen a njort ni yéene ko moom te moomoo leen ko daa am beneen borom boo xam ni mooy borom bi sax yéen léegi ngeen jóge fi borom boobu nag bi muy lal dënd bi ñu ni ko waaw mu ni ñu jaamu ko rek a tax moo tax fu ma wàcc dinaa ko fa jaamu ku may waxal ma door a wax ak yow sëñ Tuubaa fu mu mas a teg tànkam julli la njëkk a def fu mu mas a teg tànkam ci àdduna rek daa julli ñaari rakk bu sëlmalee lay door a wax ak ku mu waxal fu sëñ mas a wàcc dafaa julli parce que ba jéewal bi muy daj ak ñoom Leclerc ak SPI yi li ñuy bëri yëpp sëñ Tuubaa da leen jiitu si ci xur wi waaye yitteem ci ñëw ci xur wi yëpp mooy wàcc fas wi tudd awnullaahi kabar sëlmal wax asalaamaaleykum door a wax ak nasaraan bi. tëjeewal tëjeewal ci seen waxante bu metti booba. booba nag waxante ba metti na. mais coono yi nag fa la fa la tàmbalee waaw waaw. coono yi kay moom moom la moom la mas a toggoo sax ndax mësta bëgg li nit ñi bëgg mësta jaar fi nit ñi jaar sëñ Tuubaa bi mu amee fanweeri at rek lañ ñu wérul sëñ mag bi. bi amee fanweeri at rek la waa adduna bi taxaw ni wérul ndax boobu dañ ko ni kaay jege buur bi loo bëgg am ko mu aj mooy li nga wax ni lislaam lim ko jaral mu aj loxoom kaay jege buur bi loo bëgg am ko mu ni nii xaalu li yar kan ay nee nañ ma ma jeng waay foo fu fu ñu la wax nga jëm Ahmadou Bamba muy li abwaabi salaatini nee nañ moo ci demee dinaa ci jëlee richesse yu bëri taxus jawaahisa ton yi kulla maa xeeni allahu akbar sëñ tubaa loo tontu mu ni fa xultu ma ni leen xasbiya rabbi yàlla doy na ma Saliou Samb xam na ni yàlla doy na ko waaye est-ce que doyloo na ko 100 pour cent mooy wax ji xasbiya rabbi yàlla doy na ma waaye nag waktafaytu bihi mooy wax ji ñun ñii ñëpp xam nañ ni yàlla doy nañu ñun ñi man ak yeen ak ñi may gis ñepp xam nañ ni yalla doy nañu waye est ce que doy lo nañ yalla wa qultu hasbi rabbi lam ca tek mo am solo moy waqta faytu bihi te man ahmadu bamba mi ngeen gis ci wéri at ba juróom ñaar fukki at ak juróom yi ma fi nek ngeen may noppé gis diiné ak xam-xam rek lay gërëmlu waye duma ma gërëmlu leneen walastu radiya غير العلم والدين ولست arju duma yaakaar mukk wala aqsa te duma ragal siwa maliki yi léeg nga gis ku naan sama président sama buur sëñ tubaa nee na benn laa ci am moo tax mu utiliser maliki yi sëñ tubaa nee na man buur bi ma ci xam mooy bi lal asamaan si ak suuf si buur boobu laa xam yàllay sayyiduna muhammad daal moom laa xam ci buur sëñ tubaa nee na walastu arju wala aqsa siwa maliki yi kooku daal mooy sama buur man duma ragal duma ma yaakaar ku dul moom li annahu nak jalla aji magala yoni ni momay richel wuyun may riisal te moo musal dadi joxar bi bur yiñ ko wax ni kay jegal len ndax nga riis mu ne annee ufawwidu ahwali liman ajazu an hali anfusihim ajzal masaakini buri aduna yi ngeen ma bëgg a <laughs> lan lay jëlé samay mbir man ahmadou bamba di ko wekk ci buri aduna yi nga xamanteni si dañoo lottu ci seen mbiri bop ni miskin lotte ci mbiri boppam aw kayfa yub'azuni nan lamay may nan lamay yabalé hubul xubbul bëgg poñatum aduna ni ila jiwari man duruhum rawdu sayatini ci ëttu ñi nga xamni buri aduna yi nga xamni seen ëtti moy jardin seytaane mu dëddu lepp dëgmal yalla rek mu wan aduna lepp dëgmal yàlla l'islam jaral ko amul benn sew-sew bu borom Tuubaa di bàyyi ci lislaam sew-sew laa la wax bu ñu mën a pardonné bu mu mën a doon taxul Cheikh Ahmadou Bamba bàyyi l'islam Sëñ Tuubaa mësta bàyyi benn sew-sew jamono xataalewu ko nasaraan si waruñu ko mbooloom boppam topp ko mu ne ci mbégte sëñ bi mbégte ak jalti jalti nasaraan yi ak métti métti yi la suñ tubaa yemale woon ci war a jëf diine suñ tubaa bu waree jëf diine day mel ni ndaw lu am fukkeet ak juróom ci sawar munu masaana julli bërët lay def noddu gi bu suñ tubaay dégg buy daanu rek moo moo ngi fi ñu war a jullee xaadimu rasul waaw parce que nee na bi yàlla dugalee baatu maw xuutaa ci aaya bi nee na la yéex koo def xaraam gis nga fa déggee waaw baatu mawxuutaa inna salaata kaanat alal muminina kitaabam nee na baatu mawxuutaa bi mu duggee ci aaya bi la yéex koo def arab waaw kitaabam mawxuutaa nee na bi yàlla rek la yéex koo def araamati bi ko yàlla wutalee heure Saliou Samb am na ci analyse boo ma dégloo ma wax la ko procureur de la république bu ma waxoon 14 heures fekk ma bureau maak sama mbokk yépp 13h fa la ñuy fekk te bu neexee yàlla mu rey ko midi bala maa ñëw te yàlla ma wax julli ci tisbaar ci 14h. dëgg la d' accord ngeen wala dee. Mhm. waaw suñ tubaa loolu taxoon moo am benn buur suma président de la république waroon a recevoir suba li ma gën le laay sol moo tax suñ tubaa julli gu ne mu daan sol fóot mu yees. parce que moom benn benn benn buur boobu la xam. benn buur boobu it moo koy jox audience privée ci waxtu julli. audience bi ko yàlla